jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare lamb ñu ngi leen di nuyu am kontaante ak mbégte comme luñ leen koy defalee saa ne mbokk yi ñu ngi fii ci arène national ki ñu fi woo di Ouzin Production boole fi ñaari ndaanaan Angleterre bu dóor dóoraat ak Madji Madji kaay ñu wan leen lépp loo xamante ne ambiance la ci biir Madji Madji a ngi nee Adam kaay. jili bëggee naa la. waaw di kontaan ci xolal ci sañca bi nag. Ah. waaw noir blanc bi. dinaa bi nga dugg see gis sa doomu nday ñëw Angleterre ba yëg-yëg nga am. non Angleterre yëg-yëg bi ma am ci moom mooy dugg ci biir rek jàpp daan ko yëg-yëg boobu laa indaale moom lan ma yabee ah moom laay bëre incha jàpp ko daan ko man gëw ma sax ay nii kii xoolal li ma ko doon wax rek di jar dëgër du bok li ma yëg mooy tey man vee am incha maa koy am. dafa mel ni ni ngay waxee nii da ngaa indaale sab ndam. détermination bu rëy laa indaale man damaa bokk ci làmb man damaa bokk ci làmb am ci cër. kon xam nga ne ay Angleterre yi ma yàqal suma yoon yaa ngi may dégg man damaa bokk ci làmb du ko combat bi taxul damaa war a woon ne ah amateurs yi ah ak supporters yi yëpp man damaa bokk ci làmb waaw. nu koy gañee ci xeex wala ci bëri. non bu ñu duggee ci biir nag lu mu laaj rek lu gën a yomb rek bu laajee xeex ñi xeex bu laajee bëri man ja parce que jàng naa ñaar yooyu yëpp man jàng naa xeex jàng naa bëri tëlewuma loolu moo tax lu mu laaj rek ñu def ko. Angleterre lool la gën a mën non Angleterre dafa am code Angleterre daa am code. waaw déggul xam nga moom daa am code. yow seetlu nga ko dem nga bonne personne. lu ma ci xam. non saful ngéwal daa am code. daa kàddaaral dem dee nga ko. ay waay. Madji Madji noonu. waaw waaw. noonu. xale baa ngi <laughs> waa Géejawaay lamb waaw waa Géejawaay ngi nii waa Medina Gunaas waa Gunaas waaw gis nga yow ñëwoon nga open presse ba xam nga ne ma damaa bokk ci lamb xam nga ne ku toog deux ans ba réewoo indi lii kon xam nga ne bokk nga ci lamb incha allah lamb ji lañ koy confirmer waaw gis nga waa Gunaas. waa a ngi noonu. voilà waaw ñii yëpp waaw. maa ci indi na de. xoolal moom demee. waaw gis nga. noo ji li lan ay jàmbaar ji mbokk yi arbitre bi sofle na quatrième combat de la ak Bresine eh Talibé Bresine Talibé daw na jàpp wala déet jàpp na ko jàpp na Talibé xeex na ak Bresine jàppante ñoom ñaari mbëri plaqué bañ na ña xeex fetal yaa ngay tàkk arme yi génn na ña ngay <laughs> xeex door mbaa door mu daanu du taalibe Brésil kaaw kaaw dina am taalibe Brésil kaaw dina am kaaw dina am ña ngay xeex ñaari xale yeñ wane seen bopp kaaw taalibe Brésil ña ngay xeex ee lam ee taalibe Brésil taalibe na dooraat na ña ngay xeex kaawoo mbaa làmb ji du jeexee dóor mu daanu kaawoo taalibe ndeysaan ikir waalo la nekk dresin dresin fekkee ma ci boole la nekk taalibe moo leen wan ginnaaw dresin ngeen jàkkaar lool jàppante ñoom ñaari mbëri plaqué ko taalibe plaqué jàpp na mu bañ taalibe Bressin taalibe Bressin taalibe Bressin taalibe ëñ na ko mu bañ ëñ na Bressin mu bañ cey làmb taalibe ëñ na ko mu bañ mu ngay dóor taalibe ngay dóor taalibe ngay dóor ma ngay pompe taalibe ngi dóor Dérésine daa bëgg fay mais taalibe ngi dóor Dérésine ba taalibe taalibe plaqué na ko daan na ko taalibe daan na ko écurie Walo nañ benn ndam le volant taalibe ngi ne écrit la ne am na ndam lu rëy ci kaw Dresine bu fekkee ma ci boole hey lam da ziar ci loo nekk gàkk sant ak ngërëm rek lu càndum ah, de waaw maa ngi nii de raglu ma loolu yaa waaye sant yàlla bu baax instant yi loo yëg ah, ndam rek ana inshallah ah. ndam rek dara leneen xeex wala ci bëre. ci lépp lu mu laaj rek. gis naa bagage. ci lépp lu mu laaj rek waaw lamb la lamb lamb culture la. ay culture rek dara. waaw. ñëw nga taaral bis bi ba mu taar. waaw sant yàlla wax dëgg yàlla suñu mbokk jàppale nañu liggéey lañu war a liggéey ànd ak waa géej waay mobilisé ñëw stade ñaan yàlla yàlla may ñu ndam rek loolu toowoon rek fañ fañ tegoon si tànk la teguwuñ ko. koy bëre. man ak Brise de Mer de Mer 2. waaw. dina neex dina yomb. incha allah ndam. waaw maa ngi nii rek baax di jàppale booy rek. ah gars yi nee na ma booy Socé bàyyi. non non non bàyyi ma xam nga tamit làmb ji moom dafa toll foo xam ne foo nga def ruwaat te booy Socé moom ku ko xamul dégg nga ko daal mooy problème man baax naa di taamu di mbër ku ma ku ñëw baax na xanaa mbër bu ñëw baax na xam naa ne moom loolu damay bàyyi xeex bi léegi te gars yi ne ma Socé day bàyyi xeex bi gars yi mën la jël boo bàyyul xeex bi gars yi mën la jël mbër bu ñëw daal baax mbër bu bërëgul na ñëw baax naa xeex bi daal léegi baax naa xeex bi léegi bëre rek Ama Boy Dieng eey lamb ji yàgg na lamb ji yàgg na waaye Ama lu mu bëgg dóor na Boy Dieng nag xale boo la boo xamante ni mu ngi def fulla ak fayda ci bëreem Boy Dieng Ama Ama booy Dieng Ama booy Dieng Ama Boy Dieng ëñ na ko bañ Ama sol na Ama Boy Dieng Ama Boy Dieng Ama Boy Dieng caxabal na wutar na ko daan na ko na Ama daan na ko jéggi ko oh Boy Dieng daan na ko Boy Dieng daan na ko Boy Boy Dieng daan na Ama jëlal Adama kii ay mbokkam a ngi nii aywa aywa gaay sama gaay waaw bimbam aya yo suma wara bimbam aya bimbam aya yo suma wara wala boog gaay wala boog gaay yëngal leen gaay yëngal leen gaay lan la wala boog gaay eh eh eh waa ñi ñooy waa ñan waaw waa Cambérène nag waa Ngor waa Wakaam ak waa Yoof ak tundu jandeer waa Dén ñoom dong la fépp fu lébu nekk rek tey pression ci yow ci lamb mukk si àdduna du am pression du am xeex wala bëre lu mu laaj ñu def ko incha allah saa ñambur si kàttu incha allah gonek dóor dóoraat baa ngi noonu Moussa Balla Gaye ngi noonu père père siyaar naa la Moussa Balla Gaye ah ku la wax père. ah ah ah nga waxal ah ok. Ah, yow bëri yow ah, non sama sama kat mooy mag. nee a ah, Maaji Maaji man waaw mais man Maaji romb naa ko après moom Angleterre la. waaw mais sa combat moom ñu ma doon ay combat mais dara sottiwul daal. na sa combat yow ak caatu Yoff. xaw ma na. man du yàqoo man. li la waxoon fële li ma ko waxoon fële. si loolu laa doon bëre barke Seydina Mohamed du man su ñëwee tay tay tay mu lekk avance bi man ñooñu lay wër xale yi wër. kaay waa Dóor Dóoraat yaa ngi nii eh kii lu may xool eh waaye def yow <laughs> mbër ziar naa mbër loo may lii lan la. non dama lay xool si affaire bi laa lay xool nii. waaw sant nañ la fay nañ la naka yëngu yaa ngi si jaamu. tey nga ñëw gis maaji maaji bis bi lu mu laaj. non bés bi lu mu laaj te teel dal la dal ak dal rek waaw parce que yaakaar liñ liggéey am nañ si yaakaar ne mën nañoo may ndam te bu soobee yàlla dañ si am ndam incha allah waaw. Madji nee na tey dafa war a wane boppam tey la Sénégal di xam li mu gëj a bëre deux ans yi mu toog bërewu ko tey lañ koy xam. Hmm. ah waaw xam nga nit ku ne rek yaakaaram rek dafa yaakaar mais tey lay joome tey dafay jombi parce que si bâtiment la dugg bâtiment man maay la bâtiment. dafa yaram bi daa am code munoo xeex munoo bëre te bu la jàppee di nga ci la waaw baax na wax baaxul li ma nar tey bu soobee suñu borom tey la nar a waaru bâtiment bu màbb si kawam la nar a gis siin laa jëm ak moom siin fa laa jëm ak moom. sa ay loo yor mbër léegi tamit téyekatu ci béykat yi. waaw waaw waaw <laughs> non comme que làmb ji nii la demee làmb moom xam nga da ngay xaar ba sonn doo waaw nga nekk say activité bopp rek ba sax lu dara ñëwee. waaw gis nga Sunjata Sunjata gis ma gisoon bi ma sumee ko gëj naa bëre te man bëri fi nekk maa ngi ëpp xam nga kon mooy lool mujjee bëre. man maa ngi mujjee bëre puissance waaw. puissance men. puissance waaw puissance moom it daa mel ni comme ma def la def rek. da ngaa moom it naa ne dégg nañ par messenger mu ne ma moom it pare na ci quoi. kaay kaay. chef siyaar naa la tey ngeen ñëw ànd ak seen doomu ndey seen xarit Angleterre bis bu lu mu laaj. waaw bis bi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi rek di sant ñëpp di sant parcelle 1 ba 26 surtout waa unité 3 unité 4 di bëggee ñëpp gis nañ ñu taxawoo angale jàppale ko mais angale lañ koy ñaanal suñu borom suñu borom may ko ndam bu sedd guy def na li mu war a def entraînement na pare na pour bëre ak Madji nga yàlla na ko yàlla may ndam ci kanamu Madji Madji. avantage su Angleterre ci combat bi lan la. waaw lépp la muy xeex di bëre. waaw ñu pare lépp xeex ak bëre. maaj maaj lu mu indi rek ñu fekk kattanu yàlla. yu vert takk aw ma ci de. waaw mais lii gars kii rek waa CNG ñoo ko jox gars yi tax takk ko quoi waaw pour yi xam gars yi quoi. Ah, waaw ñoo ko joxe de. pour ah mais waa CNG ku nekk pour ñu xamee mbër mi. mbër mi ñu mu war a àndal dix personnes ñu ko may moo tax ñu jox la ñu jox nu ko. waaw waaye. Garga Mbossé day fotow de. damay ruubee foto bi. Garga Mbossé. Moussa Balla Gaye sama fan la bàyyi ko foto ma. Balla Gaye yaay foto sama fan borom baax. alhamdulilah. tey ñëwaat nga gisoon naa la ci open press bi. fekkaat la ci làmb ci seen diggante yéen ñaar lan la. waaw waaw waaw waaw diggante ñaar doomu ndey la rek jëlee. Ah, ah Angale sama doomu ndey la. dafa leer gis naa la ngay wane sa bopp te làmb ji dafa mel ni làmb ju la yéen waa Dóor Dóor. bisu jàmbur moom kenn mënu si wane sa bopp mais li nekk suñu xol rek la ñuy jéem a génne ndam la ñuy yéene suñu doomu ndey yàlla na ko yàlla def. ñoom ñaar avantage su Angleterre lan la. waaw ba si rek ba si kanam. avantage am ci yow mbër bu fekkoon yow yaay bëree fi mu toll. Angleterre mooy ndam rek Angleterre ndam rek moo ko arrangé. nan la war a mën a bëre daal. mënuñ si wax dara yàlla yàlla may ndam rek waaw garga mboose ko mu ngi wax ak ñoom ñaari mbër Lébu Ndooy ak Sa Ndiambour Lébu Ndooy moo la woon ginnaaw ngemboo ngemb lu bulali te am lu vert ci ginnaaw Sa Ndiambour moom nga jàkkaar lool noonu Lébu Ndooy Sa Ndiambour am na morso bu weex bu mu lal ci géew bi arbitre bi sifle na Sa dox na ci koom ña xeex moog Lébu Ndoye Lébu Ndoye saa ñaambur Lébu Ndoye sànni na saa ñaambur ci tànk bi la jëm Lébu Ndoye saa ñaambur ñoom ñaar garde normal ak fausse garde xeex nañ daw na jàpp ko saa ñaambur jàpp na Lébu Ndoye lu mu nar da koy witti xëcc na ko de saa ñaambur fi mu jàpp baax na Lébu bañ na saa ñaambur a koy bëgg a caxabal Lébu Ndoye Sa Ndiambour moo la woon ginnaaw Lébu Ndoye ngeen jàkkaarloo moo ngeen boo lu bule li daan na ko Sa daan na Lébu Ndoye eh, Sa Ndiambour Sa Ndiambour daan na ko kuy Sa Ndiambour daan ah kon moo daan <laughs> eh buur géwal ndeysaan bu Dakar Actu Siteu Papa Sow 2STV arbitre bi loolu yëguma ko de lii tay la 2S waaye les femmes seront à l'honneur ndax tey jigéen ñi def ci lamb tey ñoom ñoo war a diriger l'émission mooy geste bu nice bu Pape Abdou Fall def ànd ceeg la 2STV tey animateur jigéen ñoom Fatou Diop da baax ñoom Nabou Ngom bu waa Happy People ñoom Fatma Dia bu info réew mi ak ñoom pël bu rafet bu bool TV te ñoom tey ñooy animé tey plateau war a jàkkaarloog Siteu ak Papa Sow. loolu dina neex dina yëngu. day neex sonu nañu waay saan ñoom ñaara ngi noonu. booy waalo dàq xeex. booy waalo moo dàq xeex gis nga. ci xeex bi lay musée. ci xeex lay mujjee. ci xeex bi lay mujjee daa mel ni garde bi baaxul. saa di baaxul boo xamante ni baaxul. xaw nañoo jiwaloo ñoom ñaar. jiwaloo na ñoom ñaar. ndeysaan. Angleterre moo wala bëre grand combat bi. waaw waaw. xale bu yàgg bëre xale bu yàgg bëre Angleterre. ndeysaan man fekk naa ko jamono rek énergie gu njëkk ga. Hmm. moom ñoom sàmm nag. dëgg la bës. maa la ko xam ñoom ñaari yaar. dëgg la ay eh, ñoom Moussa Safara. dëgg la loolu yàgg na. yaa ngi wax ay champion. walaay ndey Moussa Safara dàqoon ci àdduna. walaay ndey Moussa Safara. waay. <laughs> jamonoy Xaadim Fall production. billaay. ndeysaan maa yàgg sonn ci lamb ji lii. buur jàppale nga xale bu ne. walaay dama yàgg sonn ci lamb. Mbaboor laa la tuddee. walaay Mbaboor. yaa raw Mbaboor. dama yàgg ci lamb. ray rakk mbay mbay Mbaboor. ray Mbaboor mu ndaw mi. parce que gis na faay bi waaw. gis na faay bi quoi. mais buur ndengeñ est-ce que du tëj làmb. déedéet ndengeñ moo gën a mën a sonal mbër ji bi ndengeñ bu ñu la ko tegee bu ndengeñ bi jaara yoon doo doo mouvementé mooy mouvement boo bëgg rek du sotti xoolal booy waalo fi ñu ko dégg ndengeñ bi remarqué du def benn geste xoolal. ndeysaan ay 200 ngay dox ci kawam ma ngi koy ndengeñ rek di ko buux. ci avertissement la bëgg a joué. la bëgg a joué ba gën a ko gis nga da a puusal ba gis nga. d'accord ma ci L200 buux na ko ba mu génn L200 sonn na fi mu toll nii am na trois avertissements. lambam waaye yow sax waaye justement saa su la ñu leen am solo arbitre yu ñan la ñi grève la wala ñan la. déedéet arbitre yu grève yi ñëwaguñu ba léegi bu loolu war nañ cee wax. ñi dañoo recruter ñeneen. dañoo recruter kii ñu ngi ko jëlee Bambey kii ñu jëlee ko Jaxaaw Siin. mais est-ce que ñoom war nañu mën a nangu loolu aussi. ñan ñoo war nañ ko nangu. arbitre yi bu dee koor bi benn la. te ñoom solidarité ci seen biir. est-ce tey bu dee mbul daa bañ la may nangu. problème day am ci lii. problème am. ñoom ñëpp waroon nañoo manko doon benn say. mais nag Sénégal du xeex xeex collectif de. déedéet. dala ci dugal ba ci biir ne la bokk ma. bokk ma ci. Sénégal la mel noonu ci. defee te ñoom ñii la ñee di xeex seen intérêt. la intérêt la. maanaam mënuma comprendre. ngeen organiser làmb. jëlee arbitre ay combat eh ji. xëy na daan na ko bu rëy. L200 la. L200 L300 la. L300 la. buur L200 L400 la. L300 la. Eh, L200 daan na. na. Mbot maa. Mbot maa lay ziar. maa ngi delloo ziar. merci beaucoup merci merci. merci beaucoup merci beaucoup. façon bëre bi nga bëre booy waar. waaw lan la. non lamb ji moo laaj loolu rek. lamb ji moo laaj bëre. mënoon naa ñëw xeex. mais xeexuma dama ñëw pour bëre. dama ñëw wan ko ni du mbër man naa mbër. ndax maa ngi a ay waxam nee na moom lutte simple la quoi moo tax ma indil ko lamb bi loolu kese. mais mu jël ñett avertissement nga war a téye sa bopp nga attaqué ko mu daw jël la nga mbot ko mbot bi salal la non mënu ma xaar mbot du sama foor sax sama foor jàpp ngemb la gis nga su ma jàppee ngembam day mbot du sama foor sama tàng neex na de mais du ma mbot loolu la man jàpp mu dëgër doo bëre man maa ngi dëkk Missirah ñoom Mbaato Missirah ñoom dëkk waa ñoom Mbaato laa Missirah dëkk waaw waaw te foofu laa bëgg a yóbbu ndam li nag roi des arènes bi la àndal ñii Zal Baye Fall doomu Saafeen Zal Baye Fall dem na ardo léegi ba dellu siwaat Baye Djily est-ce que gisoo ne Zal Baye Fall bu ñëwee dina téye boppam. Eh, fi mu toll nii doomu saa doomu Saafeen da koo wan ni ragaluma la. boo indee xeex ma indi xeex boo indee bëre ma indi bëre. dégg naa ñu la mu saf ko ko macc ko xam Zal Baye Fall ñëpp na ko. wolof moo ne yaram benn la boo dóor borom yëg ko. Zal Baye Fall fi mu toll jël na coup day taxaw gis nga bi arbitre prime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 daal Baye Fall. moo ngem boo ngem gën taw na jàpp ko waa lii lan la. bu baax na de mbot ma mbot ma doomu saafen du ci génn. doomu saafen doo ci génn. yaakaar nga lool ni nga jëlijee baaxul. ni mu ko jëlijee baaxul lekk na loxo ba. laay laay la lekk war na ko ndoom moom doomu saafen doomu saafen dóor na ko. daal Baye Fall daanu tëdd na. mais xale bi bàyyi leen ko xel. tëdd na doomu saafen mi. bu am fit la xel bëre na bëre bi. xeex na xeex bi. daan na daan bi ay doomu saafen pour man sax du ci génn. école lu nit booy ba mën la nekk. laay la la xale la doomu Saafeen daan na. di caat bu bay bàmba muy waaj bés bu am solo moom tamit. xale yaa ngi noonu. Adama lii mooy lamb. mooy Brise. ndeysaan ne nga ca. ñoom ñaar sonn nañ ku nekk ñu noppalu. muy Thiandoum muy Brise. ñaari xale yi ku nekk a ngi joxe li mu am. làmb ren la rek. reenu ñàmbi la kenn xamul fu muy dammee ndaysaan ña nga ca de caandum ak brise caandum ak brise cokkaas na ko brise door bu dal léegi door na arrêt bu dal caandum ak brise ña ngay lewaatoo Thiandoum sànni na ñoom ñaar ku ci nekk joxe na lu mu am muy Thiandoum muy Brise ñaari xale yaa ngi ci ba tey ndaysaan làmb làmba ngi noonu làmb daal làmb la tudd Thiandoum la ma waxoon ci biti Brise la ma waxoon ci biti ba ñu ñëwee làmb ci changé na ñoom ñaari xale yi ña ngay lewaato Thiandoum Brise 2 Thiandoum 2 Brise 2 cey làmb ña ngay lewaato ñoom ñaar ña ngay lewaato Thiandoum cokkaas na Brise fayu na mbaa du jeexaat daysaan muy sargal képp kuy jigéen ci weer bi nga xamante ni weeru jigéen ñi la jigéen ñi moomu ñu weer at lañu moom at bi li ci nekk yëpp jigéen ñee ko moom mooy suñu yaay ñooy suñu rak ñooy suñu sœur ñooy suñu jabar jigéen daal jigéen la ndaysaan ñuy sargal képp kuy jigéen di sargal képp kuy yaay Thiandoum 2 ak Brise 2 ñu ngi ci combat bi ba tey ndeysaan ña nga ca ñoom ñaar ñoom ñaar a nga ca ba tey ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar ku ci nekk daa téye sa bopp fi mu toll nii bu combat bi jàllee rek grand combat bee ci tegu Angleterre bu dóor dóoraat ak majji majji bu waalo ndeysaan ña nga ca Thiandoum dóor na léegi Thiandoum dóor na léegi benn coup bu dal arrière na ci digg géew bi Brise ak Thiandoum Thiandoum 2 ak Brise 2 Brise cokkaas na Brise daa sonn Thiandoum jël na tànk ba da koy dëj daan na ko Thiandoum daan na Thiandoum daan na ko Thiandoum daan na ko Thiandoum daan na ko Thiandoum daan na prise bu rëy Thiandoum daan na ko. lu xew. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim yàlla julli seen bi di sant sunu ñaar waajur bu baax a baax a baax di nuyu askanu Grand Yoff bu ñu jógee di yootam bu baax ndax yow sunu grand nga sunu papa sunu lépp bés bu tey bi man maa waroon bëri spécial mais boo gisee bëroo moo xam rek dama am problème jeune quoi mais instant bi reprendre naa naa samay entraînement macha allah maa ngi koy traité quoi. mais maa ngi gën mbooloo ba maa ngi Rock Énergie. non ba ma sama sama début carrière ba nii Rock Énergie la mos a nekk maa. fa mos a maa ñoon Zarko ñoom Gaab ñoo ñoo fa nekkoon doon après ñoom si la ñibbi si. Grand Yoff man maa ngi foofu ba tey. say début. dëgg la Milima nekkoon xale bu brillant. mën a bëre am ginnaaw. jékki-jékki Milima commencé enchaîner ay combat amul temps dara amul temps bu mu noppaloo est-ce que nekkul loolu moo leen indi seen rajo jafe-jafe. waaw loolu tamit lu waral yenn gàllankoor yi ndaw yi si la ndax dañoo dem ba jàpp ni xam nga chaque jour dañoo war a bëre boo nekkee ndaw nekk si xam nga nekk nekk si ay loxo ay waare nga mën a woyoo mais wax dëgg yàlla am na erreur yoo xam ne jot na jàll suñu ginnaaw xam nga instant bi ñu ngi toog di xoolaat bu baax a baax suñu plan de carrière ndax tey ji lu mu gën a yóbbee ci ay tolof tolof yu ndawe sax li nga wax si la bokku dañoo dem ba foog ne xam nga rek bu asamaan bi wàccoon sax mën na nga tee fekk fugu xam nga fugu xale moon jàppoon quoi mais heure bi màgg nañ si làmb xam nga wax dëgg yàlla yoon bi seggaat nañ ko seggaat ko bu baax a baax a baax a baax a baax. sànq nee nga la maag bi jóge bëre léegi spécial maag moom ñoo ko waroon bëre Zé Baye Fall Zé Baye Fall bu yëmbal waaw. bi daanu waaw ñoo waroon bëri spécial bi instant bi ñu ngi may wax le 29 mars bii nii spécial bi waaw incha bu neexee yàlla waaw ñu ngi may wax combat boobu noonu mais xam naa feeg semaine bi incha allah dinañ ko contrôler di gërëm promoteur bi tëgg lamb ji bu baax a baax ndax sama nit la sama lépp la ba lamb ji yàqoo tamit teewul daf ma woo xam nga yëkkati xaalis bu bëri jox ma ko ne ma demal nga faju lii du dara xam di ko ñaanal bu baax baax loolu yow sa la. ah Liss Ndiago boo yooyu moom man moom buñ ma laajee du ma leen laaj ndax li ma def si làmb booyoo defaguñ ko si làmb mais tam bu ñu làmb boolee tamit ñu bëre amul benn problème di ñaanal sama doomu ndey Sikoor yi xam nga di ko ñaanal fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jóge yàlla seen borom xaar fi daw si waa grand yëpp jooy nañ daal ndax mag boo xam ne tey jii nii mosuñu seetaan si dara ni may bëree mbabat ba ni may bëree aaraan ma moo doon takk sama ngeem ba ni may wax ak nii wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal fu mu jëm gënal ko fu mu jógee di leen ñaanal yéen tamit jàmm bu baax a baax suñu borom dafa leen taw bu baax ndax buur moom buuru Garañaaf la buuru Sénégal la mais am leen jàmm rek jaa ngeen jëf pour siyaar naa kontaan waaye boo xoolee Angleterre ni mu dirigé combat bi moo gën a baax que màjj màjj avertissement avertissement wu pour man du yoon jaru woon koy jox avertissement ña nga noonu arbitre ba sifflé na ña ngay lewaatoo Angleterre maaji maaji Angleterre jiital tànk ndi jor Angleterre sànni na Angleterre ni muy dóoree baaxul te day wàccee garde bi loxo gauche bi ma ngi koy wàccee loxo droite bi maaji maaji bu doxoon ci kawam rek bu dóoree day am dara bu siifuroon rek bu dóoree ji coup bi dina dugg Angleterre majj majj ayca waay ayca ayca Angleterre sànni na coup boobu baaxul Angleterre sànni na majj majj dóor na majj majj dóor na Angleterre dóor na jàppante nañ déedéet dañoo dugg rek génn ñoom ñaar. dugg nañu rek génn ndeysaan ndeysaan ña nga ca Angleterre dox na ma ngay dox Angleterre dóor na dalul dóoraat na koy dóor ma ngay dox ci kawam mu ngay dox ci kawam tuuti ma ngay dox ci kawam lamb ji buñ jàppantee rek mu jeex waaw waaw buñ jàppantee mu jeex Angleterre jàpp na ci loxo ba ma ngay dox ci kawam ma ngay dox ci kawam. mais Baye Djily yaakaar naa ne maaji maaji bu xeexoon fii du am dara. maaji maaji ku Angleterre garde bi dafa wàcc ba ci suuf. maaji maaji bu doxaloon benn arrêt de gauche indi droite bi rek dina dal. yii yëpp gëj moo ko waral. ndax boo xoolee dañoo dañoo perte ay repères ñoom ñaar boo xoolee ni maaji maaji bëree lii du làmbam angale boo xoolee ni mu bëree du làmbam xooloo xooloo garde yi bàyyi ji lii xooloo garde wax ma nga naan arbitre bi nee ko mu taxaw. léetoo bu yàgg bi arrangé wu ko waaye ña ngay ña nga ca ñoom ñaar ndeysaan Angleterre door na maaj maaja baare taxaw maaj maaja ngay door ma ngay dox ci koom maaj maaja bëgg naa jeexal combat bi Angleterre fay na xeex doorante nañu ay kuy dalut maaj maaja door bu dal maaj maaja ngay door kuuba dal na maaj maaja Angleterre kaawo door na daanu Angleterre door na ko mu daanu. Angleterre door na ko mu daanu. Angleterre door na ko mu daanu. Angleterre door door na ko mu daanu. Ndeysaan door na ko mu daanu. Oh Ndeysaan lamb